sayyidina muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in laqin lisani wahlulan minhu loqad waj'alhu shakiran wa zakiran abad waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu nuyub lislaam bu tedd boobu te di leen ñaanal suñu borom bi subhaanahu wa taala mu defal leen jàmm ak yermande di ñëwaat rek comme ni ko baaxoo ànd ak yéen ci jataay yi ni amal ci ay bis bu ne muy lu aju ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi nga xam ne moom la tudde nahju qadaa'il xaaj te lépp di jàngale ay teggiin waye lépp di jàngale worma waaye lépp di jàngale ab yar ñu doon ci ànd ak yéen ba suñu bind bu mujj ñu taxawoon ci bayit yi nga xam ne moom la sayiduna ali karamallahu waja doon wax ci yemoo gi nga xam ne moom la nit ñi yemoo ndax ñëpp ci aadama alayhi salaam wa sayidatuna xawaa ci lañ soqi ci bayit yooyu ci lañ taxawoon ñuy gis foofu sayiduna ali karamallahu wajha di wax ne bu fekkoon ne ndamu day lu yell la borom xam-xam yi rekk ñoo war a ndamu ñu yeggale woon bayit yooyu ba dugg ci saraa bi nga xam ne moom la teg ci bayit yooyu ba taxawoon ci fi mu doon wax na wa annahu yuallimuka bi anna mimma yuinu ala taallumi wa yusahilu sabilahu an tatawarraa fi ilmika wa tatlubahu lillahi wa qillatu nawmi wa qillatu shibai wa mulazamatu darsi suñu bind bu mujj ci sara boobu la taxawoon waaye bind bi nga xam ne moom lañ war a àndaat ak yéen day mel ni buntu boobu mu fëggoon di wax ci xam-xam ba tey jeexut ci loolu lay continuer rek ba tey mu ne kama xiila niki ñu ko waxe yaa taalibal ilmi yow aji sàkku xam-xam baadir na nga gaawe waraa ak sàmm wa bàyyin te nga sorente a nawma ak nelaw wax jur te nga gàddaay ashibaa regg waqbil te nga jublu ala darsi ca bind ba muy ca leçon ba laatu faariqhu bul tàqalikoo ak moom fal ilmu xam-xam xaama taxaw na wala jóg na bi darsi ca bind ba warta faate mu yëkkatikoo ca nee na mi ngi lay digal yow mi nga xam ne dangay ngay sàkku xam-xam day na nga sàmm bu baax a baax a baax na nga sàmm bu baax a baax a baax waaye na nga xam li ngay sàkku lan la doon waaye it na nga moytandiku nelaw yu bari nanga nga moytandiku nelaw yu bari waaye nanga na nga moytandiku li nga xam ne moo di ak regg ndax mbir yooyu dafa doon mbir yoo xam ne day gàllankoor kuy sàkku xam-xam di kuy sàkku xam-xam di bari lumi nelaw wala di baril ak reg loolu day gàllankoor sàkkukatu xam-xam bi da koy gàllankoor ngir mu bëgg a egg ci xam-xam fa mu bëgg egg ndax nit ki su dee def euh, saa bu xiifee lekk ba suur euh, te du bàyyi xel ne bu suuree rek nelaw mën na caa tege bu boobaa lu bëree bëri ci li nga xam ne moom lay sàkku muy xam-xam mën na koo raw mu ne kon na nga def sa yitte yëpp rek mu nekk ca bind ba nga xam ne moom nga am muy bind bu bees te bul ko ak moom mukk ndax xam-xam day ca la mu taxaw dëgg-dëgg mooy boo jëlee bind rek nga bàyyi ko xel waaye nga wattu ko bu baax a baax nga toppaat ko ba man caa jële njariñ lu yaato yaatoo yaatoo kon nee na liy saxal xam-xam ci boppum doomu aadama bi li nga xam ne mooy jàppale xam-xam ci euh, ki nga xam ne moo koy sàkku mooy mu fexey ba su jëlee benn bind bu bees mu taxaw ca waaye mu fexey ba euh, nafaraat ko euh, bàyyi ko xel bu baax a baax a baax waaye kon borom ki nga xam ne moo bëgg a sàkku xam-xam wala ki nga xam ne moom mooy sàkku xam-xam na moytandi ko bu baax ay nelaw yu bari waaye na moytandi ko bu baax li nga xam ne mooy regg bu ëpp moo tax mu ne wa bi annaka naka yow laa budda mënta ñàkk làkka ñeel la mina darsi ca bind ba wa kasrati takraari ak baril ak baamu wa xaalifi nafsa te na nga wuute ak bakkan fi zalika ca loolee kama xiila niki mu la ko waxe nena kon yow mi nga xam ne dangay ngay sàkku xam-xam na nga euh, xel li nga xam ne mooy bind boo jël rek na ko bàyyi xel waaye bindu boo jël na nga ko baamu ba mu sax ci sa bopp waaye na nga ba wuute ak sa bakkan ndax wuute ak sa bakkan mooy tax la nga bëgg a am ci xam-xam wala la nga bëgg a sàkku nga man koo nga man koo sàkku mu ne an bakkan euh, moo tax euh, sëriñ bi waxaat ne an bakkan kal maliki dafa mel ni ab buur fil aada yi ca cër mahma yamil saabu bu jengee tamil cër ya jeng bilamtira i ci amul benn werante nee na dafa doon loo xam ne dafa mel ni buur ci cër yi maanaam dafa mel ni buur boo xam ne moom mooy digal cër yi saa boo xamee ne jàng na rek cër yëpp dañuy jàng ànd ak moom kon bu fekkee ne bakkan daf la poussé ci euh, bëgg ay nelaw wala di nelaw nelaw yu bari wala di lekk lekk gu bari di regg nee na na nga fexey ba xeex ak sa bakkan ba yooyu yëpp nga man koo euh, saafara ci sa bopp ndax loolu mooy li nga xam ne mooy euh, dimbali nit ki nga xam ne mooy sàkku xam-xam waaye moom mooy tax xam-xam bi muy sàkku mu man koo jox yitte bu baax a baax a baax a baax euh, am beneen waykat buy wax ne wa nafsu bakkan kat tifli dafa mel ni ab xale in tuhmilhu ndeem sàggan nga sàggane nga ko sabba day màgg rek ala xobbi radaa ci bëgg nàmp wa in taftimhu ndeem feral nga ko nag yan fatimi mu fer nena bakkan de daa mel ni ab xale rek xale boo xam ne day nàmp ab xale moom li feek mi ngi nàmp nga bàyyi ko day continuer rek di nàmp feek feraloo ko du fer kon feek feraloo ko du fer day continuer di nàmp nena bakkan noonu la mel feek mi ngi bëgg di euh, bëgg lu neex ci bakkan bi te yow mi nga xam ne yaay yow ci sa wàll bopp doo ko aaye lu neex loolu muy bëgg muy lu mel ni ay nelaw wala lu ki mel ni regg wala lu mel ni loo xam ne dafa neex ci bakkanam mu jël ko di ko def fu mu toll nga bàyyi ko ci nee na e, ci noonu rek lay e, ci noonu rek lay wéyee bu ko bàyyi mukk ci loolu rek lay woy waaye nag su fekkee ne fexee nga ba feral ko comme ni ñuy feralee xale bu ndaw boo xam ne toll na ci nàmp ñu tere ko wen soo teree noonu sa bakkan yi neex ci moom ñana bu boobaa loolu dana la dimbali waaye dana tax nga euh, gën a mën a sàkku xam-xam waaye dana tax nga gën a jox li nga xam ne mooy yitte xam-xam moo tax mu ne euh, fii zalika ci loolu euh, kama xiila ni mu ko waxee waxe xaliliya yow sama soppe wala yow sama xarit laa sal bul tayyel wala tuhmil bul neenal ad darsa bind ba wala tonti bul jox an nafsa bakkan ba tawan ak topp fi batalatiha ci ak bëgg eh, am noflaayam wala ci ak bëgg ak baña a eh, sonnam dana yow sama mbokk day maa ngi lay digal nga bañ a tàyyeel booy sàkku xam-xam day maa lay digal nga bañ a waaye maa ngi lay digal itam nga bañ a neenal la nga xam ne mooy bind ba nga xam ne moom ngay jël neenal bind ba nga xam ne moom ngay jël mooy lan mooy euh, xëy nga tey jël bind bu bees nga egg rek nëppu euh, bañ ko jàngat bañ a xool li nga xam ne moom nga jël tey ci bind bu bees yooyu yëpp neenal am njàng te boo ko defee dangay ngay euh, fàtte loolu nag li koy waral mooy nga topp sa bakkan saa boo xamee ne nit dafa topp bakkanam ci lu ko neex loolu mooy waral euh, suy jàng loolu mën naa dem ba jural ko ay jafe-jafe ba mujj mën naa sax a jaare foofa yàq li nga xam ne mooy am am njànga moo tax mu ne wala tatruki bul bàyyi at takraara baamu fi fii maa jala nga xam ne xafistahu wattu nga ko waman taraka ku bàyyi at takraara baamu ga laa budda mënta ñàkk an yan saa mu fàtte ne na euh, bul bàyyi baamu bind boo jël mu bees nee bul ko bàyyi di baamu maanaam na koy baamu foo toll waaye na nga koy wattu di ko jàng di ko jàngat di xool yi nga xam ne moo ci am waaye bul bàyyi baamu ko mukk ndax saa boo ko bàyyee ne na mënta ñàkk nga fàtte ne na kon soo bañee fàtte euh, ab jàngkat su bañee fàtte na def mooy la nga xam ne moom lay jël ci ay bind yu bees muy fexey di ko euh, moytandiku bu baax a baax waaye muy fexey di ko wattu di euh, jàngat li nga xam ne moom lay jël waaye di ko baamu ngir mu bañ koo fàtte waaye di ko baamu ngir gën cee xamaat yeneen yoo xam ne euh, xamu ko woon te ñu xam ne jàng moom mënta yomb kuy jàng faw di nga gis ay euh, mbir yoo xam ne euh, yu mitt la yoo war muñ waaye boo fekkee ne muñ nga ko loolu moo lay jural xam-xam ba barkeel waaye bu fekkee ne nag muñoo ko lu dal ci sa kaw nga bëgg koo jàmbat wala yu deme noonu bu boobaa. loola mën naa jural jàngkat bi ay ay ay tolof tolof waaye mën na koo jural ak gàllankoor ci li nga xam ne euh, mooy moo di euh, njàng ma nga xam ne euh, moom lay jàng ndax gis nañ sëriñ bi radiallahu anhu mooy wax ne kun kaatiman li durri wal bu saatanal xasdan wa taalul jiila yaa mutaallimu ne na yow mi nga xam ne yaay jàng na nga nekk di nëbb say lor ak lépp loo xam ne moo lay gàllankoor ci sam jàng ne loolu de boo ko defee li nga xam ne moom ngay bëgg muy raw sang maas di nga ko def ci li nga xam ne mooy lefum xam-xam li nga xam ne moo aju ci xam soo koy sàkkoo nii maanaam di nëbb say waaye di muñ li nga xam ne mooy say tiis yi nga xam ne moom ngay jànko jànkoonteel ci sàkku xam-xam bi ne na saa bu fekkee ne yaa ngi koy def ne loolu dana la jural nga am li nga xam ne moom ngay saako muy xam-xam waaye dina la jural nga raw san ci euh, côté boobu bu baax a baax a baax mu waxaat ne laa tut siri sakwa bul bari am njàmbat yow mi nga xam ne dangay ngay sàkku xam-xam di jàng nee na bul bari am njàngat fa kun mutajallidan na nga nekk ku dëgër xataa yazunna naasu annaka munaamin ba nit ñi sax njort ne yow mii euh, maanaam ci amoo benn jafe-jafe ci ay xewal rek ngay dox ndax ki nga xam ne mooy jàng su fekkee ne jafe-jafe bu mu am bëgg koo jàmbat jafe bu mu am bëgg koo euh, euh, jàmbat nit ñi ne na loolu day tax euh, jàngkat bi loolu mën naa dem ba yokkatloo ko te loolu baaxul kon nit ki su fekkee ne day jàng di sàkku xam-xam la mu war a jëfe jafe dëgg dëgg dëgg mooy muñ mooy muñ dina gis lu metti dina gis lu ne waaye la koy euh, taxa a yegg fa nga xam ne fa la bëgg yegg ci xam-xam dëgg-dëgg muñ rek moom moo ko mën a may fal ilmu la yonta liman yaxsha tawa bal rabbuna abdan saburan yulhimu ndax sëriñ bi radiyallahu anhu wax na ci xasida googu ba tey ne xam-xam de kenn du ko jox ku ragal ab xiif waaye kan la ko suñu borom subhanahu wa taala di jox mooy ki nga xam ne ab jaam la boo xam ne bu mën a muñ la waaye ku xam li mu bëgg la di dox di ca euh, di ca jëm ba xasida googu yooyu yëpp ay ndénkaan la yoo xam ne sëriñ bi dafa koy dénk euh, ki nga xam ne mooy sàkku xam-xam ngir lan ngir mu mën a dëgëral li nga xam ne mooy boppam waaye ngir mu xam lan la bëgg muy xam-xam waaye mu xam lan moo ko ci mën a fekk ci ay jafe-jafe mu koy euh, mu koy muñ waaye mu koy bàyyi xel bu baax a baax a baax kon ci loolu ci lay sara bayit yooyu mu ne wa bi an na man naka ka xam ne lam yubaadir gaawewut at taalluma gaa a jàng waaye tafarrax muy féexlu lahu ñeel na ko fii sibaahu ci ak ndawam xalla néew na an yanaa muy am matluubahu càkkutéefam minhu ca moom wa yuxassil tami amal minhu ca moom marxuubahu la mi xemmem li anna taalluma naka jàng fi sigari ci ak ndaw ka naqsi dafa mel ni rëdd fil xajari ci aw doj wu tooy wa euh, jàng fil kibari ci ak mag kalkat bi dafa mel ni bind alal maa i ci kaw am ndox sëriñ bi radiallahu anhu nee na euh, euh, gone day ki nga xam ne mooy gone di jàng de am njàngam mooy gën a sax ki nga xam ne moo doon mag ba pare di jàng ndax ci doon ndaw di jàng sëriñ bi radiyallahu anhu ne na njàngam day mel ni doj wu teeway rëdd ni nga xam ne na rëdd wa di saxe ci doj wa ne na njàngum mag noonu lay gone noonu lay saxe ci uh, xelum uh, gone gi waaye su fekkee ne mag la moo xam ne nag day jàng ne na njàngum mag baax na waaye day mel ni kuy rëdd ci kaw am ndox ngir lan ngir gaaw a fàtte goo xam ne mag mi dana ko gaaw a fàtte ndax gone gi nga xam ne moo toll ci jàng di jàng euh, loolu daf koy dimbali ndax amagul benn charge yoo xam ne mooy tax muy xelaat yenn yoo xam ne dana euh, mën a yóbbu am xelam waaye nag bu dee mag yu bëree bëree bëri ci jamono dab ko mu koy xelaat loolu mën naa tax am njàngam euh, na mu war a demee dëgg-dëgg du ni demee mu ne xaala wax na baadu shuaraa yi ñenn ci waykat yi araaniya euh, gis naa sa bopp ansa may fàtte maa la nga xam ne taallamtu jàngoon naa ko fil kibari ca mag ga wala bi naasin te déet may aji fàtte maa la nga xam ne taallamtu jàngoon naa ko fi sigari ci samak ndaw ne na man de damaa gis sama bopp ne li nga xam ne moom laa jàngan ci sama jamonoy ndaw maanaam waxtu wi ma tollee ci ndaw li ma daan jàng damaa gis ne fàttewu ci dara waaye li nga xam ne moom laa doon jàng bi ma nekkee mag damaa gis ne dama ko tàmbali di fàtte kon loolu day dëggal li nga xam ne moom la euh, moom la euh, saraa bi ñu romb léegi wax kon loolu day dëggal ne mag moom am njàngam mën naa am solo waaye Euh, ngir mu sax ci boppam mën naa jafe waaye nag bu dee gone moom am njàngam mooy gën a gën a sax moo tax mu ne wamal ilmu déet xam-xam illaa bi taallumi ndare muy nekk ci xam lu fi siba ci ak ndaw wamal xilmu déet lewet illaa bi taxallumi ndare muy nekk ci ak lewet lewetlu fil kibari ci ak mag nee xam-xam de dëgg-dëgg buñ koy wax nee mooy xamlu ci ak ndaw rek nee naan xam-xam moom dëgg-dëgg ki nga xam ne moo ko bëgg te bëgg koo sàkku dëgg-dëgg su ko bëggee na ko sàkku ci ak ndaw ndax ci ndaw gi li muy sàkku ci lay gën a saxe waaye xam-xam bi nga xam ne moom la bëgg yitte ji ko war a jox ak euh, euh, temps bi nga xam ne moom la ko war a jox ci ak ndawam la koy amee kon na koy sàkkoo ci ak ndawam waaye bu dee lewet nag nee naa lewet moom euh, mag lañ ko gën a yaakaare ci mag lañ ko euh, gën a yaakaar moo tax mu ne wamal xil mu déet lewet nag illa bi taxal mi ndareet ci lewet lewet lu fil kibaar ci ak mag nee na lewet moom ci ak mag lañ ko gën a séentu séentu waaye xam-xam moom sàkku xam-xam dëgg-dëgg jox ko temps ba nga xam ne moom la yelloo dëgg-dëgg ci ak euh, ndaw la gën a gën a gën a gën a ci lañ ko gën a yaakaare moo tax mu ne walaw xuliqa euh, bu ñu xaroon alqalbu xol ba almuallamu mu ba di bañ xamal fi siba ci ak ndaw la ulxiya kon ñu fekkeef fiihi ca moom alilmu xam-xam ba kan naqshi lu ki mel ni lu ñu rëdd alxajari ci aw doj nee na bu fekkoon ne dañoo xar ab xol xolub xale bu fekkoon ne dañ koo xar euh, fekk euh, xool gone gi li nga xam ne moom la jàngoon ci ak ndawam nee na day dañu koy fekk mu mel ni doj wu tooy wu ñu rëddan na nga xam ne na la ca euh, rëdd wa di dese ngir euh, jamono joñ ko rëdde nee soo ko euh, xaroon xolub gone tamit njàng ma na muy saxe ci ba mooy na xeer na rëdd woowee di saxe ci doj wa nga xam ne moom moom lañ rëddoon aw rëdd nee na ca rëdd wa di saxe di ca dese noonu la njàng mi di dese ci Euh, euh, boppu xale bi moo tax mu ne walaw fulixa donte xareef na alxolbu alxalbu xol ba almuallamu ba di bañ xamal fi sibaa ci ak ndaw la ulxiya kon ñu fekk fii ca moom al mu xam-xam ba kan naqsi mu ki mel ni aw rëdd fil xajari ci aw docc kon euh, loolu li muy tegtale mooy njàngum ndaw daa gën a sax njàngum njàngum mag njàngum ndaw ni mu mën a saxe ci euh, xelum gone gi euh, bokkut ak njàngum mat mu ne wamal ilmu déet xam-xam baada chi bi ci ginnaaw béjjaaw illaa taasufan dara fetteelu isa kalla ndeem lottu na xalbul mar i xolub cemsi wa sàmm akub déggam wal basar akub gisam ne na xam-xam day ci ginnaaw dem ba màgget ba bijjaaw di sàkku xam-xam ne na lool de ak féttéerlu rek lañ ko mën a ak fétal rek lañ ko mën a jàppe ndax euh, nit ki saa boo xamee ne euh, li nga xam ne mooy ab déggam neexatut ab gisam neexatut mu bëgg tàmbali foofa ne day jàng loola euh, yaakaar dañ cey am dëgg-dëgg wala lay tax am njàng jug dëgg-dëgg muy xam-xam bañ cey yaakaar mën na caa bañ a am kon nit kuy jàng dafa war a teel a jug jox yitte am njàng balaa euh, jamono ji ko war a defee wala jamono ji ko mën a joxe yitte dëgg-dëgg di weesu moo tax mu ne wamal mar u deet cam si illaa ndare muy ñaar aqlun am xel wa mantiqun ak xelaat fa man faatahu képp koo xam ne faat na ko haza muy am xel wa haza ak lee muy xelaat faqat damar te dëgg-dëgg alku na kon Euh, Thiamside dëgg-dëgg ñaar yi rek mooy li am solo ci moom mooy mu am am xel ba pare di xelaat te euh, mag mi saa bu demee ba toll ci yenn âge yi am na lu ko gën a ñor ci la xelaat lu lu dut euh, am njàng ndax bu njaboot wëree leneen ak leneen ay soxla yeneen ak yeneen di la dam ba ciy xelaat kon bu boobaa boo ko bëggee boole ak akum njàng boobaa sam xel du mën a xelaat loolu waaye sam xel du ko mën a jàpp te bu boobaa waxtu wa nga ko war a defee day euh, day weesu kon li gën mooy nit ki na fexey ba jamono jim jamono jum toll rek lam ca war a def bu ko xaare suba sa li nga war a def tey bul ko xaare suba waaye li nga war a def def suba bul ko xaare ginnaaw suba mu ne waxalam na nga xam bi anna al ilma naka xam-xam day saabun lu jafe la laa yunaalu deefu ko am illa bi xabsi nafsi ndare ci tëj bakkan an xiilin ci ay wax waxaala ak wax na ne na nga xam ne xam-xam day mbir mu jafe la moo xam ne yombuta am yombuta am ci lu dul nit ki nga xam ne moom moo jaayante maanaam tëj bakkanam euh, waaye euh, fexey ba not bakkanam ba li nga xam ne moom la bëgg a sàkko mooy xam-xam mu jox ko yitte jam ko war a jox nee kon nit ki feeg tëjut bakkanam feeg jëlut bakkanam euh, jéngu ko nee na euh, bakkan boobu mën naa doon gàllankoor boo xam ne mooy tax du mën a sàkku xam-xam comme euh, niñ ko bëggee wala yu niilu te du am ahadun kenn baadahu lennam moom xam-xam addahra jenn jamono maalam yahab li feek joxu ko lahu ñeel ko aljamia léppam fajtahit na nga farlu ne na kenn du am ci xam-xam la nga bëgg li feeg yow jëloo sa lépp jox ko ne na xam-xam da ngay jël sa lépp jox ko moom mu jox la tuuti boo bëggee am ci xam tuuti da ngay jël lépp jox ko boole ko góorgóorlu waaye nee na képp koo xam ne da jël sa lu bari teeku jox sa xam-xam tuuti nee na euh, dara doo ko am ci xam-xam waaye bu fekkee ne da ngaa bëgg am tuuti ci xam-xam kon jëlal sa lépp nga jox ko te nga góor nee na bu boobaa xam-xam dana la jox lennam waaye sax du tax mu jox la léppam moo rax mu ne wala yu niilu euh, du am ahadun kenn baadahu lenn xam-xam addahra ci jenn jamono maalam yahab li feek joxut lahu ñeel xam-xam aljamia lépp fajtahit te mu góorgóorlu te farlu dana kon soo bëggee am xam-xam dëgg-dëgg nana na nga jël sa lépp jox ko na nga jël sa temps bu bëree bëri jox ko waaye euh, boo ko joxee sa lépp loolu sax moom xam-xam du tax mu jox la léppam ndax xam-xam dafa doon lef mu yaatu moo xam ne euh, ku ne mën na cee euh, tàng euh, ku ne mën na cee jël sa wàll tax mu jeex moo tax mu ne fa atihi na nga ko jox bila nisaan ci lu amul benn xëccoo wala ngaayo kullaka sa lépp fa laylaka sa guddi fashër na nga fokk laylaka sa guddi waltu jawweex te ngay xiifal bat naka sa biir kon nee na na jël sa lépp jox ko xam-xam te bul xëccoo ak moom dara jëlal sa temps bépp nga jox ko ko nee na soo ko joxee day euh, li nga ci bëgg da nga ko am waaye fexeyal itam bay fokk guddi maanaam di bañ a nelaw lu bëree bari waaye fexeyal bay xiifal sa biir ndax su fekkee ne sa biir day euh, fees fu mu toll ngay suur bu boobaa ay nelaw rek nga cay bëgg a euh, teg waaye deel am li ñuy wax del def ci sa biir rek maa yu xaw wi asulba mooy li nga xam ne dana la dimbali ngir nga mën a taxaw ba mën a sàkku xam-xam waaye bul jël sa biir di ko di ko di ko di ko di ko feesal dell aw ñam foo toll te ne da xam-xam ndax loolu day tàyyeeloo ki nga xam ne mooy sàkku xam-xam moo tax mu ne fa aatihi na nga ko jox bila nizaan ci lu amul benn xëccoo kullaka sa lépp fashar na nga foog laylaka sa bëcc sa guddi waltu jawwiate nga xiifal batnaka sa biir wasma te nga mar nahaaraka sag bëccëg wal tuti wal tutixib te nga sonne bihi ca moom kulla jawaaraxi mboolem cër yi ma ta addu bi ànd ay teggin kon ne na na nga euh, euh, xiif waaye na ngay mar bëccëg gi na ngay fexey di mar waaye bul euh, def foo bëgg a lekk dem lekk foo bëgg a naane dem naante ne da ngay sàkku xam-xam ndax yooyu yëpp day feesal sa biir te saa bu biir bi feesee dana bëgg leneen lu du toog di euh, sàkku xam-xam moo tax mu ne kon na nga fexey bay mar sa bëccëg waaye na ngay fexey di sonne xam-xam na ngay fexey di sonal sa cër yépp ngir lan ngir ñu euh, yittewoo li nga xam ne moom nga yittewoo muy xam-xam ndax ci loolu rek ngay mën a amee lenn ni xam-xam waaye su fekkee ne defoo ko li nga bëgg ci xam-xam mën nga koo bañ a am waaye soo koy sàkku nga sàkku ko ànd ay teggiin ndax lépp loo xam ne ay teggiin euh, lalu ko bu boobaa loola mën naa euh, am la nga cay séentu dëgg-dëgg euh, doo ko doo ko am kon xam-xam nit ki bu koy sàkku na ko sàkku waaye na ci ànd ak ay teggiin na ci ànd ak ay teggiin mu ne man lam yarumhu képp koo xam ne sàkkuwu ko hakaza nii laa yazfaru du tuuf maanaam du am minhu ca moom bi ilin euh, lu bari kazaaka ni ki noonu axbaru lañ ko xibaare nee na képp koo xam ne day sàkkoowoo xam-xam nii nga xam ne noonu lañ la ko waxe day nee na euh, neewaana nga am la nga xam ne moom nga cay sàkku muy am ca lu bari waaye man caa jariñ kon soo koy sàkku na nga fexe ba yooyu nga xam ne moom lañ ci tudd yépp nga bàyyi ko xel waaye yooyu nga xam ne moom lañ ci euh, wax yépp nga bàyyi ko xel ngir loolu mooy tax li nga ci bëgg nga man ko kon di wax ne lu ci jub ci suñu borom bi subhaanahu wa taala la lu ci jaamu euh, jàngalante ak yéen la ridwaanu rabbil araadi wassamawaati wasalaamaaleykum ala saxaabati wa saadaati kullihim ridwaanu rabbil araadi wassamawaati